bisimilah asalaamaaleykum euh, ami internet Diaspora News TV tey nag dañu leen ñëwaloon fii nga xamante ni euh, moo di Colobane Colobane quartier oui mais Colobane marché euh, ak déguerpissement yi nga xamante ni on peut dire des séries de déguerpissement yi nga xamante ni nemmeewutu nañ ko fii ci Ndakaaru dalee ko Kër Massar fan yi nag ñu gis ne que Colobane bëri na ay déguerpissement yoo xamante ni am na fi mu jur coow lu bëri tey nag ñu ñëwoon Colobane taataan kàddu goné yi nga xamante ni ñu ngi fii sëriñ bi. Mbaye jóob la Mbaye Diop. Mbaye Diop yow ah, Colobane nga dëkk wala da fi liggéey. non dama fi liggéey mais léegi ma am fi 30 ans yu teg moom. d'accord depuis 30 ans yaangi ci marché may ci marché bi di liguey mom wax deug yalla di dan sama doole euh, tay euh, ñu gis euh, premier ministre ñëw fi ba demb am waxtaan yu mu yëkëti gannaaw bi nga xamanteni ni déguerpissement am na bagage yu bari yaqku nan nga gisee mbir momu le non ñëw bi mom ñun jaay kat yëpp rafetlu lan ko ndax ay nit mom bu fekkee ne ñoom lan la wara a def def nan la ko fexé nan la ba fal si réew mi koloban man na ni Sonko bu falé koloban ñoko fal genn ginaaw boo nek fi nekk yëpp daal moom la nandal buñ sa yoon ñun jaay kat yi nak bu fekkee ni si mu fekkee ni amagun fu ñu yóbbu ñu bàyyi ñu ñu liggéey ba si kanam ñu am fu ñu yóbbu ndax xam ne fii ñu nekk sax du yoon mais ñàkk pexe mooy ndax mun ñoo xëy tëdd sa fii koo fi gis mais jabar wala ñaari jabar wala ñetti jabar buñ sa yoon daal dañuy orienté yóbbu ñu feneen ba ñu bàyyi ñu fi liggéey ban mën noo jox place yu baax mais place yu jaaykat boo ko day jox boo ko bëggee dimbali boo ko day jox da nga koy jox ab site ko jox ay magasin yoo xam ay million lay doon ndax fii ñi fi nekk amuñu doole boo leen joxee magasin yoo xam ay millions la ñuy doon duñ ko mën a fay boo leen jox da nga leen di wut ay site yu normal jox leen ko ñuy tabax par ndànk-ndànk ba keroog ñu koy mën a fay boo leen bëggee dimbali noonu nga leen di dimbale mais doo gis magasin yi million nga koy jox am marché ambulant sa yoon nag ñu wutal ñu site yu baax jox ñu ko ñu wàcc tëli ndax tëli ñun gënalul ndax risque la si ñun daal gënalul ñu fii ñi fi nekk ñëpp kenn bëgg fee fanaan mais danoo mut pexe amuñu ñoo génn sa ñu ay yoo xam mun ñoo toog leen xool moo ñu gënal sàcc moo ñu gënal liggéey rek lañ bëgg fu nu yóbbu fu baax mën nañ faa dem liggéey. 30 euh, ans nga nekk euh, marché kolobaan euh, tey ñu def déguerpissement ndax avertissement amoon na ci wàllu. non amul moom amul moom amul moom moom amul. dañoo ñëw rek fii ñëw moom daf la ñuy daf moom wax dëgg yàlla amul moom amul moom. amuñ benn kenn ku si dox benn kayit sommation amu si moom. mbaa yàqu-yàqu am na ñu jot a yàqule am na bay moom am na ñu si jot lu bari moom wax dëgg yàlla ñu jot yàq def bi moo ñaaw sax ndax dañuy bàyyi ba nga wàcc ñu am dara sa ñi koy def yaak ñoom yéen a dëkk yoo xam ne lu ñaaw waru faa xaaj ndax am nañ fii jabar am fii doom am fi lépp suñ genn wàll gépp ko la baan lan ko amee man nan ni buñ sayoon suñ diggante ak ñoom lu rafet rek moo fi am Eh, jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay. ñu ngi lay siyaar bëre wër. salaamaaleykum sëriñ bi baal ñu nga jox ñu tur bi ak sant mbay Moustapha Mbaye. Eh, Moustapha Mbaye yow da nga dëkk Colobane wala da nga liggéey. waaw man dama fiy xëy si dama fiy liggéey dëkkuma fi quoi mais fi laay liggéeyee fi laay xëy chaque jour quoi comme sama mbokk yi magen maan yëpp nañ fi xëyee. Eh, yow depuis combien d'années yaa ngi fi. bon man yàgg naa fi lee ma def fi ay 15 ans ay plus ah waaw lee ma def fi ay 15 ans et euh, plus mais comme li ma gis nii ci marché bi gars yi di def. bon vraiment man rafetlu ma ko quoi parce que fii fi mu ne abita ay famille lañ ñun Nour Mekken maan yeeg mm, habitat habitants yi nekk marché Colobane ak maire beeg yëpp fi mu famille lañ parce que instant ñi fi fi fi ak waa Colobane instant yi nii dañuy amante ay jabar ñu ngi takkante di def lépp quoi donc kon buñ fi ñëwee mën nañoo rafetal comprendre nga. teg ko ci euh, teg ko ci ci yoon quoi damay dégg euh, lii fi xew nii gars yi di yéeg kii tojago kii loolu yëpp mun naa ñàkk parce que ñun des fois euh, ñoom dañuy am problème ñëw taxawu leen ñoom tamit léeg-léeg ñu léeg-léeg ñun ñu am problème ñoom ñëw taxawu ñu parce que ñun instant yi ay famille lañ nit day jógee fii dem ci génn kër dem takk fa soxna am fa lépp am fa famille am na ñoo xam ne fii la ñuy fanaan Colobane te dëkkuñu fi amuñ fi dara mais fii lañ am famille luyee fi donc kon fi mu ne nii ay famille lañ moo ñun ak ay maire ak ñun ñëpp on est ici ensemble yaa ngi dégg kon war a nañoo mën a rafetal bañ ñu nekk di toj yooyu noonu ñu xool nan la ñuy programme affaire rafetal ko ba ñëpp mën a toog liggéey ci jàmm ak salaam kenn bañ a yàqal kenn bu ko defee bu boobaa kenn du amal kenn euh, euh, rankiñ wala dara quoi. voilà fukki at ak juróom euh, euh, bu dee dëkkandoo la don nañ ay mbokk euh, tay ngeen yag fi nga xamanteni modi ci marché biñu ñu woyee Colobane seen liggéey fi naka lay démé wa ñun sen liggéey fi ni budul affaireu toj yeeg yoy nonu amuñu ben problème parce que ñu dañuy xey ñew liggéey ci jàmm wacc dem ñibi ci jàmm ci lañ yor suñu njabot ñi ñi ngi ci fi yor fi seen jabar seen dom am ñoo xamanteni seen ay ñaari jabar lañ fi yor ak seen i famille te ci li lañ ko amé xam nga. donc kon buñ ñu rek un bon journée ñi dañ fiy joggé lolu bon du solution wa man xool leneen lu ñu gën a naay ba ku nekk xajal sa morom ñu tok liggé ci jamm wa lolu daal la. jóge boobu ñu wax ne joggé la fi ndax amon na avertissement ay weer yu ko jitu am déet. wa franchement avertissement amoon na avertissement amoon na mais bon bi ñuy amee avertissement bu amé tamit nekkul ne ñëpp ñoo mëna teub teub rek jóg. xam nañ bi wala naka la. non avertissement bi yëgle la. yëgle la moo comme comme. jox euh, ñu jooti yeeg yooyu nu ñu expliqué ne bu gars yi dinañ fi ñëw dañoo bëgg a dindi affaire bi loolu mais ñu sax ay ay délai yu kii wala délai c'est pas un délai précis xam nga dañuy dégg rek naan boo waa maire bi dañ fi ñëw jour temps wala yooyu noonu waaw war nañ fee jógee yooyu du gars du kayit buñ bind wala dara ñun gisuñu ko bu fekkee ne tamit xëy na am na fi kon waa kon délégué bi marché bi moo ko xam wala kii mais ñun magen maa moom ñu ci bëri yëguñu affaire bi mu demee franchement parlant. yàqu-yàqu yi bëri na wala métti na. yàqu-yàqu yi moom vraiment métti na parce que boo xëyee boo xëyee yor sa njaboot ak sa famille pour sa taabal di teg di taaba xey di liggéey ci fekk ñu trajaxé sa table ak sa mbar yele ko fi xam nga bo ñëwee do am fo liggéeyee boko bëggé def ñaari fan ñetti fan day bëgg metti ci borom kër waaw vraiment kon donc mu metti wul damay wax luma neex metti na ci képp ku ñu yàqal fi sa table wala sa ki metti na amna ci ño xamné sax yàqal nañ leen lu ëpp table wala mais sante yalla tamit quoi waaw parce que ni mo ñaax waaw lan ngay xaar ci autorité locale yi manam mairie wala autorité étatique yi manam président wala premier ministre waaw maanaam xam nga fi mu toll nii maire yi ak euh, autorité présidentielle yi li may xaar si ñoom moo ñu jéem a déggoo rek waxtaan seen biir te xam ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk muy di maire ak président ak premier ministre ak ñun ñi population yi xam nga suñu civil simple civil yi ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñoo ko moom bu ko defaree ñun lañ defaral pour yàqee tamit ñun ñëpp la yàqalee waaw donc kon dañu waral ñun ñëpp déggoo xam nga trouver benn consensus àndoon liggéey yéenante jàmm lool rek mooy fi nekk quoi mais leneen amu fi. ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi. waaw kay jërëjëf ku baax. Diop la euh, maire. Diop maire Diop euh, maire yaa ngi euh, Colobane nga dëkk wala da nga fiy liggéey. waaw fi laay liggéeyee. ñaata at yaa ngi fi. bon def naa fi 24 ans. 24 ans ba tey nga nekk fii di liggéey tey ñu xëy indi lu toll ni déguerpissement bu ni mel ndax amoon na ay avertissement ndax dànkaafu gu jiitu amoon na balaay mbir mi la dem. Ah, non amul avertissement. Euh, c'est la première fois ma gis déguerpissement bon nga xamné def nañ ko mu toll nii te joxe ñu ñi ñuy ben benn wa amul parce que le à la veille parce que vendredi lañ commencé ñun jeudi lañ yegg ni fi table yi dañuy jokk et eh, table yi dañuy jokk dañuy dindi fee dañuy dindi fee mais amul ben avertissement amul woon waaw. tay ñu gis euh, yàqu-yàqu yi ni mu tollu ndax euh, bari na metti na nan nga mëna évaluer yàqu-yàqu yi. yàqu-yàqu yi mom ay millions c'est des des dizaines de millions lañ fi parce que table bo fi gis. lu mu néew néew borom def na ci quinze mille francs bi gën a yomb am na yu dem ba cinquante mille te dinañ fi ay des centaines de table kooku loolu ça fait million millions yu bari la mën nañ wax sax milliards mën nañ wax sax milliards alal yu bari la te li ci gën a métti mooy lii balaa mat euh, quinze jours loolu lépp dañ koy wutiwaat waaw muy énergie boo nga xam ne ñi doon def def nañ ci seen énergie sonal nañ ci seen bopp et puis sonal borom table parce que borom table di jaay. léegi li bu ma la déggee mooy bàyyi woon na bàyyiwaat nañ leen ngeen lalaat fi ngeen doon lal. waaw daanaka waxewuñ ko noonu sax mais non, lay demee parce que bi c'est pas la première fois am na fi plusieurs fois déguerpissement bu mel nii am na sax yu gën a garaaw yu fi amoon. mais teewul boo demee demee balaa mat un mois boo fi jaaree dafay mel ni loolu xewu fi woon te mi ngi commencé waat parce que premier ministre ñëw na fi démb dégg nañ waxtaan li gën parce que dafa wax ci ñaari boor yëpp wax na loo nga xam ni peut-être arrangé na waa koñ bi. wax lu arrangé jaay jaaykat yi mais wax bi nga xam ne moo ci gën a direct nga xam ne boobu bu ñu mën a jàpp la nee na tali bi pour oto yi la mais trottoir yi mën nañ ko négocier ba ca kanam kon donc ñi nekkoon tali bi moom amatuñu place mais ñi ne ci trottoir yi kon mën nañu continuer te ñii ñëpp ñi ci kaw trottoir ba nañ nekk nekk ñu ci tali bi tali bi moom bu ñu yéegee ci kaw trottoir bi indi jaxasoo ci liggéey waaw voilà demee ne ci mbedd bi jëm maquette ña newoon ca trottoir ba ñee dañ du ngeen lal ñi leen moomu leen fii te it ñooy nungu leen a xajal ñu ne ci trottoir wàññi seen ay taabul pour dugal ñëwoon ci kaw tali mu indi na fii histoire bu rëy fii nii ci biir maquette ci suba wante daal li am ba des mooy eh, xam naa ni nam dem nam daan demee rek lay demee di si mois boo fi ñëwee di nga ni. day dara amul kenn dégg surtout woon kenn. loolu moo euh, xam naa tey appel boo doon def ci wala ñi nga xamante ni ñoo di autorités euh, étatiques yi lan la doon doon. waaw appel bi may def tey mooy xanaa ñu xool réew mu nekk gis nga Paris boo demee premier arrondissement ba 16 macha allah rafet na mais tollowuñu France du Sénégal Paris du dakaar parce que fii dëkk bi amul liggéey amul liggéey usine yëpp tëj nañ xam nga état bi fu nekk mënul créer emploi. te ñii nga xam ne dañoo nekk ci taabal yi ñii di lalakalaal yi ñëpp ay responsable koo ci gis am na jabar am na ay doom mi ngi dundal ay parents di leen toppatoo na mu waree ay doomam di leen jàngal di contribuer ci développement dëkk bi donc kon lu metti metti rek nañu xool foofu bu ñu xoolee foofu ñu dawal yërmande rafetul nag parce que tey boo demee rond-point jaar fa ak semaine prochaine mais da ngay dox librement rafet na trop da ngay kontaan mais nak ak bo xamé la fa nek ñafa nek ni da nga leen di yërëm yërëm seen ay mbokk waaw parce que li day neex fi mais day metti le la malheur dafa fait le bonheur du jour yoy da ciy en tout cas yërmande rek nañ dawal yërmande te xam ne afrique yàlla mi neexul waaw merci beaucoup Diop le ok ok ah, mbokk mi euh, bal ñu nga jox ñu tur bi ak sant tour bi Serigne Mbacke sar euh, Serigne Mbacke sar yow Colobane nga dëkk da nga fay liggéey waaw fi lay liggéey nak ñaata at yaangi fi fi yàgg naa fi depuis 98 ba léegi maa ngi Colobane. 98 ba tey yaa ngi Colobane di liggéey euh, euh, tey ñu gis euh, naga ni démb ministre bi ñëw fii gannaaw bi déguerpissement yi amee nan nga gisee mbir moomu la. waaw ni ma ko gisee mooy fii population yi fi nekk yépp ci ay dëkk lañ jóge ñëw fii pour liggéey fii ñi fi nekk ñëpp ay njaboot lañ yor yor ay famille yor lépp te ñëpp defar moo leen tax a kenn koo xam nga ñëw fii di fi liggéey fi ngay liggéey nga bëgg koo yàq amul fenn mais lu mu mënti doon dañ ko war di waxtaanee. ñu xam ne tamit ñu fi nekk nii Colobane ci ñi gën a taxawal Colobane ci lañ bokk ndax bu doon toon ñu fi nekk di liggéey place yi li ñu ko jaayee duñ ko ko jaayee bu doon toon loolu location bi li ñu ko ko luyee kon dañoo war a xam ne ñëpp fi nekk ñëpp benn la ñu xool lu ñu koy defaree mu baax ñu jàppalante boole si tamit yërmande parce que fii ñëpp mënuñoo am ay place ñëpp mënuñoo am ay magasin ñenn ñi ay tablier lañ mën a am ñenn ñi tamit dañoo mën a yor ay bagage ñu taxaw ci mbedd yi foog tamit na ci am de. waaw non non loolu avertissement amu ci ba baax kon mi ko te fii lu fi am lu si ëpp si ñu koy yëg ci bokk mais yëguma si dara wax dëgg fi yàlla. yàqu-yàqu yi buñ ko xaymaa ci ñaata lay tollool. non yàqu-yàqu yi moom bari na trop trop sax mënuñu kenn mënu la wax temps la dafa bari ñu am na ñoo xam ne seen seen place biñ dikkee dara génne ko. te tamit yaakaar naa rafetul nit ki góorgóorlu lijjanti xaalisam xamoo fu mu ko jëlee chargé place di liggéey même bu fekkee ne da ko bëgg a a taxaw nga waxtaan ak la waroon jig ñoom ñoo ko waroon waa maire Colobane bi parce que ñoom buñ faloo fii ñun ñoo leen fal yi nga xamante ne ñu bëri ay Touba la dëkk ak yeneen dëkk yi fii la watee Colobane ku fi fal dañ lay fal ku ñu folle ko dañ lay folli kon war nañu bàyyi xel si loolu tey itam bu ñu waxee ñu ne ñi dal si tablier yi nangam nangam am na ñoo xam ne laluñ si kaw si kaw tali bi am na ñoo xam ne laluñ si kaw tali bi c'est territoire bi lañ lal fi ñu lal ak yoon bi jotewul xam ne sin sax jigéewuñ tali gën a bàyyi xel xam ne si ni fii ñun ñu fi nekk ñëpp ñoo bokk leen luñ bëgg mooy lu defar réew mi te lu defar réew mi lu mu mënti doon das koy waxtaane ñu jàppalante ñu ñu ñu bañ ñu bañ di sax suur bu problème amee mu gën a méttee ci ñi amul parce que ñëpp amuñu am na ñoo xam ne se ni buñ xëy buñ xëyee li ñuy joxe seen kër dépasse fii lañ koy liggéey ñu yónnee ko euh, yàlla ñu ci yàlla musal mais am na bari na fi lool kon nag bu yàlla defee loolu am ñu nekk fii di taxale ñun ñëpp nekk fii dañoo war a xool li nga xam ne si mooy tax dëkk bi sensé am ci yërmande ju bëri mais suñu dikkee bu la gisee ku la gis nga taxaw yor yàq ko nga defal sa cantine dugal sa bagage ñu dikk guddi ramasser lépp leen li ñu jël ko leen li doo comprendre loolu tamit rafetul. Euh, tey bu ñu xaar appel booy def euh, ndax euh, gis nañ ne premier ministre mu ngi koy génganteeg mairie bi tey ban appel nga doon def ci diggante mairie ak état. waaw diggante mairie ak état mooy maanaam ñoom ñëpp ñu bokk defar ñor leen rek ndax mairie mairie Colobane bokkut ak sax état bi ndax Ousmane Sonko ñu bëri dañ ko doon jàppale ngir fal ko ngir changement am mais mairie Colobane ñu bëri dañ ko fal fii ngir am ci moom yaakaar. yaakaar jooju warul tas parce que Ousmane Ndoye fi jiitu woon lu bëri dañ ko daan woo di ko waxtaane ak ñun même bi ñuy jënd place yi dañ doon dem ba mairie fa lañ doon waxtaane di ko jënd kon loolu amul bu njëkk dafay war a am ba léegi nit ñi foog ñuy waxtaan ak ñoom tamit kenn nit ki bu fekkee ne si li li ko bëgg a def da nga ko bëgg a forcé day bañ mais soo ko leerle mu leer si bi boppam mën naa nangu kon lu mën di doon ñu ciy waxtaan ak a ñu ngi lay jaajëfal sëriñ bi. ok merci beaucoup jaajëf. ak sa sant. maa ngi tudd Asta Thiam. Asta Thiam yow Colobane nga dëkk wala da nga fiy liggéey. waaw Colobane laa dëkk parce que fii ba toog nii koñ bii ba jàkkaarloo sama maam moo ko moomoon moo jëndoon lépp dagg kër yi di ko jaay kon man kolobaan laa dëkk bi sama yaay gaañoo nag ñu commencé ñu jaay suñu kër yu ñu dulluwee mais Colobane laa dëkk ma amee juróom-ñett at laa ñëw Colobane ba tey ma doon mag nekk Colobane di liggéey ci marché bi. Euh, euh, mu melni ni euh, démb premier ministre fi ñew di Ousmane Sonko gannaaw déguerpissement bi nga xamantene amal nañu ko fi naka nga gis mi mbir moomu la. waaw xanaa kontaan rek parce que premier ministre bu yëgee suñu nakar man ma génn ñu def ma en direct ci ben site parce que jabaram sama xaritu dom la muy and ak mom ma génn ci site bobu jabar ji gis ko won ko ko mu gis ko mun ko sama yaay la Colobane lañ nek di liggéey parce que bima doon liggéey ci hôpital bi mom mo ñuy toggal mom moy toggal personnel bi dama bëgg nak lo leen mëna a nga jappalé leen mu ne ko man suba dina fa dem ñu dajju ñu tay suba sa Ousmane Sonko ñew mu nek ci ñun lu ñu neex ñu content ci torop mu ñew set si set ci bimu bi ñu set ci tamit bimu ñewé ñun dañ ko won suñu nakar wax suñu nakar ñu bëgg ko arrêté feulé mu ne leen man fi duma fa fi taxaw parce que kima gis ba tax mama jog il faut ma dem ba wax ak mom ñu ñëw jësi ma ma wax moom mu dal suñu xel ñu ne ko ñun dañoo xëy suba mbir bi une heure ñu ñëw wooñu nañu ñu ngi dajji marché bi ñu yëkkati ñu yëkkati bi ñu yëkkati nag ñun bañuñu ko ñu yëkkati mais ñun tooguñu ci trottoir tooguñu ci kaw tali ci marché lañ toog parce que fii nga ma fekk ma toog fii mooy sama place am naa fi fanweeri at ndox mu sedd laay jaay ak crème personnel bi ne ci hôpital bi man maa leen di toggal malade di nekk si kaw tamit man maa leen doon toggal di leen jox parce que Marème fay Sall moo fi ñëwoon ne man ndax yow malade am nañ ku leen toggal ma ne ko kenn du leen toggal bu ñu amee malade boo xam ne amu fi mbokk jóge ay dëkk yu sori man maa koy togg may leen ñoom ñu lekk bu leen li waree ruyal man maay ruy sama kër ñoom may leen ñu naan mun ne ma ginnaaw si tey man dinaa la subventionné weer bu dee bu ne dinaa yëkkati xaalis jox la nga di ma toppatool maladie ma ne ko waaw bi mu fi jógee ba léegi tamit maladie si kaw amatuñu loolu parce que hôpital bi amul doole boo xam ne dina mën a toppatoo maladie nekk si kaw bi mu président ministre bi ñëwee tamit wax naa ko ne ko ñun dañu bëgg ku ñu jàppale parce que marché bi ñu toog ci fëgg jaay bi la ñu nekk marché Gambie mi ngi fi centre commercial bi ngi fi ñu tooguñu ci kaw tali parce que ministre bi ba mu génnee di wax dafa ne képp ku toog ci kaw tali képp ku teg trottoir dinañu yëkkati mais ñun ci marché lañ nekk comme nag ci marché la ñu nekk te fi ñu nekk moomu ñu ko tamit dañ leen di ñaan ngeen bàyyi ñu ñu organiser wu toog di liggéey parce que kenn ku ne un mètre nga am un bi ñu am nag wala ñu maye ñu toogaat fi ñu nekkoon kun na waat ñu liggéey parce que marché bi ay borom kër yu bari ñoo fi nekk te borom kër yi mat nañ presque ay ñaar fukki borom kër ay fanweeri borom kër jigéen ñi mat nañ ay téeméeri jigéen te ñoom tamit ñu ngi nekk si marché bi ñii di jaay ceeb ñii di jaay ndox bu sedd ñii di jaay crème man nekk naag sama rak maa ngi moom ñooy ànd parce que jëkkëram dafa gaañu bàyyi juróomi doom yu ndaw te sësul fenn man rek la yaakaar may ànd ak moom su ma liggéey ñu séddoo liggéey bi moom muy jaay ndox ak crème man tam ma toog fii di jaay ndox ak crème comme mag laa du ma mën wër bi mais moom day wër di jaay te loolu yëpp bu ñu ko bëggee dindi tey kooku yor këram di fay luyaas yore ay doomam dina metti torop te duñu am kenn koo xamante ne kii de moo ñu war a jàppale wala moo ñu war a dimbale te xale yu góor yi nekk si marché bi tamit bu ñu xëy see da gis koo xam ne day xëy si ba pare lijjanti dépasse doog ko yónnee jabaram wala mu yónnee ko yaayam kon ñooñu bu ñu xëyee suba rek tey dajji suñuy place ñu dinañu xaw a metti te maire bi dañ ko ko wax mu ne moom yëgu ko te moom nekk maire te munu yëg loolu parce que tali bii fi nekk Seynabou Wade bi mu nekkee maire moom moo ñu defal tali bi jël fi ay employé yu bari ci ñun kër gu ne Seynabou Wade jël na fa kenn dugal la ngay liggéey su EPD yi ñu fay la Ousmane Ndoye ñëw continuer liggéey boobu yërëm waa Colobane bàyyi leen ci marché bi ñuy liggéey mu am ñu mu fi jël yóbbu leen maire yi ñuy liggéey ñu mu leen di fay kon maire bi tey bu ñëwee ñu tëb tëb yëkkatee ñu nii jàppale wu ñu gisuñu ko metti nañu torop bu ñu yëkkati woon sax maire bi ñëw taxaw daal ñu xam suñu naqar dalal ñu dinañ xam ne moom kat bokk ci wala mi ñuy dalal mais boobu ba léegi ñun gisuñu benn maire gisuñu benn responsable bu fi ñëw taxaw à part premier ministre moom tam ñu ngi ñaanal di ko ñaanal yàlla di ko gërëm parce que nag yëg nañu ñun tamit yëg nañ ko parce que ñun bu ñu yëkkatee moom la àndal bu ñu yëkkatewul moom la ñu àndal suñu bàyyee ñu liggéey Ousmane Sonko la ñu àndal suñu bàyyiwul ñu liggéey Ousmane Sonko la ñu àndal parce que xol du bëgg ba pare di bañ te ñun dañ ko bëgg dañ koo bëgg dañ ko bëgg tey dañ koo bëgg ëllëg ji ñu ñu ko tey jii ñu ko ëllëg ku ñu jàppale daal ñu jël la jàpp ndax liggéey ndax euh, déguerpissement bu ni mel amoon na euh, ay avertissement am amul benn avertissement yëguñu kenn dañuy raxas marché bi la ñu wax

ndax yàqu-yàqu yi euh, toll na noonu. non yàqu-yàqu yi toll na noonu yàqu-yàqu yi foog na toll na ko parce que yor sa taabal du fa liggéey fii yëpp dañ ko defaroon ba mu baax am na ñoo ne dañuy tëj seen place bàyyi seen bagage dañ doon tëj seen place di fa bàyyi seen yi nga gis dajji wuñ ko dañ ne woon dañuy dajji cantine yëpp buñ dajji woon cantine yi tamit yàq ay bagage jàmbur dara du ñu mujj parce que duñu am kenn kuñ ko wax parce que mbooloo la xamuñu kenn mënuñoo cité kenn kenn la mbooloo lañu. yow ban appel ngay def ci euh, mairie bi wala autorité étatique. non maire bi moom li ma koy wax mooy ñun ay njabootam lañ si njabootam lañu bokk. ay njabootam lañ ci njabootam lañ bokk seen boîte ba mu fi nekkee dafa xam ne ay njabootam lañu bu ñu amee luñ ko def te neex ko daf ñuy convoqué këram ñu ñëw wala moom mu déplacé boppam ci OFAM ñëw toog wax ak ñun Ousmane Ndoye dafi daan ñëw ne yëkkatuwuma leen tey yëkkatuwuma leen ëllëg mais defar leen seen toogaay liggéey. kon moom tey bu ñu defee lii marché bu day ni marché Colobane chaque jour nga fay fanweer juuti juuti bi di dugal ci ci ci ci mairie bi kon bu ñu yëkkatee maire bi war nañoo woo wala mu ñëw gis ñi wala mu ñëw taxaw fi mais maire bi taxaw fi de dem premier ministre bi mu ñëwee doon na laaj ana maire bi xanaa maire bi dafa am empêchement moo tax bu ñu fee ñëw ñu ne maire bi ñëw na xale yee ko téye egsiwul mais maire bu bëggoon ñëw ku day ni premier ministre di déplacé wu di ñëw ngay maire war nga déplacé wu balaa balaa premier ministre di ñëw nga ñëw taxaw installé wu. xamnu xamne ki ber la mais tam nga baye ba ministre bi ñew mbolo mi bari nga doog nga doog départ di ñew ñu teyel la kon yow ya def lu tax ñu teyel la. waaw léegi euh, si lan nga yaakaar ni ñom autorité locale yi comme mairie ak état war nañ ci lëkkaloo and ci ak askan bi pour saafara li nga xamanteni modi li xew fi ci koloba ñun maire bi moy suñu kilifa mu neex ñu moy suñu kilifa mu naqar ñu moy suñu kilifa parce que mom la fi yalla jital mom la fi yalla tek mom mi fi yalla tek nak dañ koy ñaan mu bañ top xolam te dana xelab xam na njaboot gépp moo leen njaboot parce que moom jiitalul boppam yàlla moo ko jiital jiitu bi mu fi jiitu na kenn mënu ci dara ñun bu ñu yëkkatee mënuñu ci dara bu ñu fi toogee mënuñu ci dara moom mooy suñu maire moom mooy suñu maire nag ñu xool gestuñu jàppale ñu xam ne ay borom njaboot lañ te sësuñu fenn amuñu kenn ku ñu dimbale amuñu kenn ku ñu jàppale fii rek lañ yaakaar mu ñëw organise ñu ñu toog normalement mu wax li mu bëgg ñu defal ko li mu bëgg mu bàyyi ñu ñu toog ñoo ngi lay jaajëfal. waaw jërë ngeen jëf kontaan nañu parce que yéen itam ba ngeen yëgal suñu naqar ba léegi noppalu ku leen benn yoon yéen a ngi ñu ñëw di ñu jàllale te bu leen ñu jàllalewul woon li ñu mën am ci message mënuñu ko am parce que kon premier ministre du déplacé wu ñëw di ñu gis yéen yéen a tax lu tax ñu jàppale leen jàppale ñu seen liggéey yàlla na ci yàlla def barke ngeen muurloo ko ak seeni kilifa. te lu ngeen ñu mën a jàllale pour eh, ñu demuñu fenn bu fekkoon dañoo nekk ci rond-point bi nga mën wax mais newuñu ci rond-point bi ci biir marché la ñu jëm waaw duñu jug fii kenn duñu jug baax na jërëjëf wasalaam baax na beneen kami laa bëgg tamit ndax liggéey boo gis kuy kuy ngeen ñu rek leen di nit ngeen laaj ko lu mu doon ci marché bi ak lan man maa ngi tudd Badou Diakhaté commerçant laa ci marché bi ñi ñuy yàq seen bagage yàq seen place dama kenn ci man ak samay nawle ak samay mbokk ak marché ambulant yeeg taabul yeeg yëpp. man lu mu dee dee def naa fi 13 ëpp na ko sax mais def naa fi 13 ans fi jabar fi amee doom fi amee lépp lépp Colobane laa ko amee am na ñu fi am 20 ans am na ñu am 35 ans am na ñu am 40 ans te taabul yii nga si gis taabul yii ñu bëgg a dindi ak marché ambulant yi bëgg a dindi loo fi gis moo ko fi defar. yàq bi nag leen rek moo ma ci métti mooy dafa mel ni dafa am sabotage ndax nit ki mënul ñëw sama magasin dañ koo daj te am na këyit am na këyit man am na këyit ak keneen kii ah. mais avertir ñu dañoo ñëw di suñu bagage attaque ak machine image yi mi ngi man mën naa la ko envoyé nga xool image yëpp mi ngi man dañoo tegul fenn loolu tegu bi ñuy daj magasin bi laa na leen mën nañu natt nu mu xayma ndax yow loo li nga rek nga mën a xam mais li sa morom yàqule mënoo koo xam am na ñoo xam ne seen bagage dañ ko fee bàyyi dem fi bu démé séni kër marché bi nekkoon du ñëw jola ngi Mary, tay tey balaa dañ koo yàq ci ginnaaw euh, local yi maanaam mairie wala autorité étatique yi mairie amuñu lu ñuy wax ak mom ndax ñun considéré wuñ mairie dara ndax mairie bu fekkon amna lu ñuy wax ak mom comme jëf ji ñaaw ji mu def bu ko def affaire yi dafa melni dafa am sabotage mairie mom man awmu lu may wax ak mairie ndax man considéré wu ma sax mairie yàlla lekk ne dina la jox nguur nguur da lay dab mais bu la nguur dabee da ngay yow bu gis nañ fi sama nguur gune waaye nag li ko fal bis ngi ñëw ba ci seen ndar kam dina ko folli te gis nga lii mu def lii mu def billaahi dina ko ko deseer bëccëg ndar kàmm dina yuux li koy daaneel bëccëg ndar kàmm mooy lii ay ndaw lañ te ci réew mi lañ dëkk liggéey rek ñu tax a jóg mën nañ façon xeex bu ne nag mais dañoo taamu liggéey ndax liggéey jaamu yàlla lañ wax. am na ñoo xam ne fii ay handicapé lañ am na ñoo xam ne dañoo ma dañoo ay laago am na ñoo xam ne seen i jabar seen i jëkkër dañoo dee ñu ay jigéen di jaay yore restaurant defar seeni taabul am na ñoo xam ne 60 ans 65 ans am nañ ko seeni kër nga Touba ñu yor seen njaboot ay magum jëmm di lu ñu liggéey maanaam li ñuy yóbboo seeni kër dañ koy ñëw lijjanti tey doog koo envoyé amuñu dépasse bi fanaan léegi kooku yow nga fekk fu muy suturloo nga ne da nga ko fay jëlee. te waxtaanoo loolu lan la. yow 4 heures ba tey ku yor ay liir yu ndaw. loolu ay xale lu mu dee dee loolu nga juróom-ñaari xale nga bàyyi leen Touba nga bàyyi leen Louga Fatick foo xalaat ci doomu aadama ci réew mi mu ngi fi te solidarité bi am fii amul fenn li am fii ci Colobane ay daayira ngi fii loolu loo xalaat ci lu baax dañ koy def dañuy social dañuy jàppalante waaye Colobane añu yi ñoom añu ñuy jaay ñoom seen kër ñoom ñi nga xam ne nañ bëgguñu maata bi mais añu ñuy jaay ñun ñoo koy jënd

biñ koy dajji avant ak après yëpp boo ma joxee si numéro ma envoyé la ko kii même chose ñoo dend ma ak moom man daal wax ji jarul ma koy guddal bàyyi ma bàyyi sama mbokk mi mu àggale. yaa ngi ci marché bi ñaataat. def naa fi douze ans. douze ans nga nekk ci marché bi di liggéey nga yeewu gis ay déguerpissement euh, nan nga jàngatee mbir moom. ah euh, ko métti ko bu baax a baax a baax a baax ndax jàppoon naa ne loolu moom mm, bokkutoon ci yëf yi. ndax li tax ma ne bokkutoon ci yëf yi mooy maanaam euh, li ñu waxoon ni moom la ménager defar euh, pour ndox mi bu ñëwee mën a dugg ci canal yi dem normal du loolu lañ waxoon léegi ñu dem ba boole waale ci taabul yi taabul yi nag moom jàpp naa ni euh, nee nañ maire moo ko dogal ak booyu kolobaan yi waaye jàpp naa ni lii maire moom ci sama xalaat jàpp naa ni maire waru cee mën a dugal loxoom ndax li tax waru cee mën a dugal loxoom mooy Euh, boo xoolee li muy gañee ci taabal yi chaque jour chaque jour chaque jour yàlla xam na ni loolu lii ñëw ci gafagaam jàpp naa ne loolu du ko dàq quoi ci ñoo xamante ni faluñu ko gis nga ñu koy jàppale ci taabal yi wala nii mën naa waat ci seexul xaddim ni faluñu ko te gannaaw man mii di wax ak yow bokk naa ci ñi ko fal ndax Barthélemy Dias bokk naa ci ñi ko fal ay garde corps yi demoon nañ ba xàmmee ma barke alxuraanu karim Touba laa doon wootee bi Ousmane Sonko joxe ndigal nañ jappalé bar la jëlé sama carte Touba ñew fi ci Sakura Badian fexé ba wotel képp kuma mëna wax dina ci waxa waxa wax bañ wotel bar kon tay ji su fek bar taxaw na fi barke alxuraan mako kar fi niko bar Bart mu ne ma ne ko yi ngay doxani boko bayiwul président sax man nga ko nek maire bi mom leen ba gar ko dañ ma don leen leen ko mu wax ma wax kon tay ji bu démé demee tourné waat war ñu war bu melni dina ma metti ba ca kanamu yalla barké karim mais liñ def ni ñom dañu bëgg salfañi digënté Ousmane Sonko ak boy mais xam nga ni lolu mom lolu lolu mom na la leer nañ ne duñ ko bayyi mu jall man kenn mënu maa ak Sonko Sonko kenn mënu maa jaxase ak mom ndax mako bëgg bu ko neexee sax bu ko dugal ma ci pour wal man bëgg na mais dama leen di xamal loolu maanaam lu bëriwut niñ ko defee nii dafa metti boo xoolee li tolloog ay 5000 5000 sën wala lu ko ëpp doon fi xëyee di daan seen doole di joxe dépasse tey jii nga xañ leen ko loolu nit kuy dund te nga nekk jullit yaakaar naa loolu loolu loolu nit waru ko mën a xalaat te ñi leen ci jàppale it nañ deltuwaat ginnaaw te xam ne instant bi nii lii am na leneen lu ci laxasu de ku ci ñëwaat naan da ngay da ngay da ngay jël table jàmbur wala nga da ngay lëkk ah bu la police jappé di nga wax lu sedde ndax ci yoon lañ nekk dé tay nga bayyi boy ñuy dem di taxawalu ji wala ñuy agressé wala ñuy sacc ah lool amna lu ko gën de bàyyi leen ñu liggéey japp na moy li gën nañ xoolaat doxalin bi nañ ko xolaat metti na ma de wallahi la ci metti na ma te ji jii ñoom ñi ko doon def buñ ma fekkon fi tay ji xex moy am de man damay xex wallaay la xasim yàqu-yàqu yi buñ ko nattee bëri na am déet. Eh, waay waay man na waxuma la million ay million de ay milliards man na ko bu ko ëpp ndax kenn ku ci nekk taabal boo la ca nekk bu matul bu matul cinq millions dina ko dina ko jege. xam na ñoo xam ne nag seen taabal yi moom matul loolu waaye li ñuy xëy di ci gañe boo ko doon def par dina mat ay neuf cent mille wala huit cent mille loolu nga xañ leen ko loolu metti na léegi. tayit wax deug yalla nit ki boko ko yit nga tek ko fenn teggu ñu fenn ah. teggu ñu fenn. ben site de recasement bo xamne waxtaan nañ ci dedet dedet ni état ni mairie. waaw xana li Ousmane Sonko ñëwoon wax ko fi dem mu dugg ci suñu nopi ta xam nañ ni ah, li ah bëgg a diaboliser Ousmane Sonko la ak boy loolu kessa la waye boy li nga xass gëm dañ ko gëm ba pare te ñun leer na yalla yalla ni ño ño leen fal buñ leen metti talee boo ëllëgee kenn du leen fal ku ñu mën a jege man ñoo jàppale ci suñu bëgg-bëgg moom la ñuy fal Ousmane Sonko loolu lañ ko fale woon ni ba tayit ba tayit tànk yooyu ca lay dox guddi ak bëccëg gisaguñ mu sensé benn yoon te bu sensé ñu sensé mais changement amagu fi lii nag ci diggante Barthélémy Dias la ak waa meereem kon nañ xoolaat ñoom bu baax te yërëm askan wi te xam ne luñ am lu ne askan woo leen ko may te askan wi dañ ko boo yeexee danañ ko nanguwaat asalaamaaleykum. jërëjëf euh, sëriñ bi baal ñu ko jox ñu tur beeg sant bi. yow ci marché bi yaa ngi fii ñaar depuis ñaata. depuis 4 euh, ans. 4 ans loo fi liggéey. ma damay jaay kool. da jaay kool. fii waaw mooy place bi. waaw alors euh, lu toll nii démb ñu gis premier ministre Ousmane ko jaar fi gannaaw déguerpissement bi ñu amaloon fii sa xalaat sa gis-gis ci loolu noonu. ma daal sama xalaat sama gis-gis. ak nu mu munti demee su nekkee ñoom loolu ñoom loolu seen plan la wala waa mairie bi la wala ñu si munti doon ñun ñooñu fi dawuñu fii ku mu fi munti doon bu dee mairie bi la ñun ñëpp yàlla moo ñu fi bàyyi ah ñoom fi ñu nekk ne yàlla moo leen fi bàyyi ñun ñu nekk yàlla moo ñu fi bàyyi dawuñu benn yoon chaque jour dañuy xëy gën a samp gis nga tey maa ñëw samp gën a dëgëral te dawuma rek fii mooy sam place fi xeer yi nekk nii yàqu-yàqu yi buñ ko xaymaa euh, tollum tol yàq-yàq bi man moom samay bagage yàquwul mu ngi si biir dugal naa ko depuis keroog bi may wàcc dégg coole laa dugal samay bagages mais nag bu dee songo xaw ma gars nee nañ démb ñëw na fi fekkewu ma nag ñëw na fi démb nee nañ wax na mais ak lu mu di demee pour man jàpp naa ne bu dee waa mairie bi ñoo def loolu te ñoom yegguñu tenuñu war nañ ci mën a am réew maanaam war nañ ci mën a am maanaam ndoxal boo xam ne bu ñu war nañ mën a wax ni ñu duñ dégg quoi mais démb man bu dee li TikTok gars yi fi wax man xawma si dara waxuñu fi dara loolu waxuñu dara lu leer waxuñu dara lu leer Euh, tey ban appel nga doon def ci autorité locale yi maanaam mairie ak li nga xamante ni moo di Ousmane Sonko kàddu yi mu fi yëkkati. waaw loolu moom fekkuma fi Ousmane Sonko kaddu yu mu yë yu mu yëkkati man fekkuma fi mais bu dee mairie bi tamit man mairie bi xaw ma sax nu mu demee boo bëggee dégg dëgg laa xam nan la demee. Mhm. man damaa xëy ñëw gisuma xàmmeetuma sama place noonu la demee. ñu tasaare la d'accord ñu ngi lay jaajëfal ko voilà mu nekk euh, waxtaan wi ñu leen indiloon fii ci Colobane euh, li seq na ko nag euh, diggante ñi nga xamante ne ñoo fi liggéey waaye ñi fi dëkk waaye aussi bokk na ci mairie bi ak li nga état dégg leen wax nañu seen gis-gis wax nañu seen seen mbébéb wax nañu li nga xamante ni mooy seen bëgg-bëgg ngir saafara seen jàngoro ñoom ñi nga xamante ni fii la di daan seen doole muy ñu jógee ci ay gox yu fasantikoo ñii ci biir réew mi ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi fiy xëy saa su ne bëgg loo daan seen doole ñu leen di jox nag dig daje beneen ci suñuy émission